bismillaahi fii niin ak daala yàllaaw safi baqa abin bi fiq yàllaaw bismillaahi fii niin ak daala yàllaaw safi baqa abin bi fiq yàllaaw yaa man الأمر يا ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax mbégte mu dul jeex la neem heure bu ni àddu rek ngeen di teewlu ñun ko baaxoo di ànd ak suñu sunu rubrique yi nga xamante si ni dañuy fas yéene di ànd ak yéen muy rubrique euh, xamle Dóor waar ci euh, ay gox yu fasante ko tey ñoo ngi fii ci établissement Touba Darou Salaam euh, Darou Salaam pëna ah fekk te fi koo xam te macha allah. taxawayam ak liggéeyam bu am solo bi nga xam mi ngi koy def ci département bi rawatina ci commune bi tax nag tey équipe bu Mourides point info seet ko muy cheikhul khadim ah sëñ bi ginaaw bun la jaajëfalee li nga nangoo dalal sunu équipe ñu bàyyi la nga nuyu sunu mbekku internet laataa ñu dugg jox na ko. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci ne ñu turam ak ki santam di nuyu borom dëkk bi Cheikh Mahamadul Muntaxa di nuyu mbooloo bi yëpp yëpp bàyyiwuñu kenn di nuyu internet yi waaye di nuyu équipe bu Mourides info bi ci jiite suñu Abdoulaye Samb di leen caare yéen ñëpp bàyyiwuñu kenn. <coughs> mbokk yi ñu fàttali leen fii ñu nekk tey di àddoo ngeen di teewlu euh, muy établissement Touba Darou Salam Pneu boo jógee fi nga xam ne mooy station fi nga xam ne moom mooy deux voies yi nga xam bu gaarasu Daarul Moxti bi ak bu kërisu belal bi euh, sa loxo càmmoñ ngay jël euh, jëm fi nga xam ne mooy gaarasu Daarul Moxti soo weesoo tuuti rek fi nga xam ne moom mooy route nationale bi place bi mi ngi lay féete ci sa loxo càmmoñ bu fekkee ne da ngaa jógee fi nga xam moom mooy gaarasu Daarul Moxti jëm fi nga xam te moom mooy jumaa ja Euh, place bi mi ngi lay féetee sa loxo ndeyjoor boo weetoo rek weesoo rek kër Serigne Sidi moom Serigne Abdou Lahad Mbacké euh, Baye Cheikh tey ñëw leen ngir seet la euh, ndax mën nañ xam établissement tubaa Darou Salam Pneu lan moo ko initié. initiative bi moom weesuwul daanaka yàlla dogal ñu nekk ak sunuy waajur juddoo ci liggéey bi mu nàmpatal ñu ci bi ñu xàmmee ñu nekk ci ànd ceeg moom bi yàlla dogal. ñu gisatu ko mu continuer ci demee ba jamono dox ba soppi ko yit ñu duggal ci suñu innovation yo xamné ci tollu way jamono rek la yandal lolu moy initiative bi ci bok bi ci jitu euh gën ci duggal it lo xamné ci dëkk bu tedd bi nga xamné ci lañ nekk bari na jumtu kay pour ñu fi daan soxla yo xamné ci bari dañuy jëgé fi ba saw di ko fa toppatoo yi lolu it gën ñoo inspiré te daanaka way yu bari yu melni ya fay nek di fa daw di daw fi ci dëkk bi ñu bëggoon na def si kéem tëral kattan rek ba mboolem daamar ju fi nit yor te di ko dawal boo amee aaju jupp na mën a lijjanti ko fii ci dëkk bi loolu mooy initiative bi nga xam ne moo ci jiitu lu am solo yaa ngi koy wax sànq ci initiative bi gis nañ ni fii ci Touba ñu ëpp ci ñi jënd pëna euh, bu ñu daan jënd pëna dañuy dem dakaar yow nga nekk ndaw nekk ci dëkk bi. jàpp ni lépp lu ñu tuubaa moo ci war a gën a yell ndax loolu mooy sa sa ngëm te tamit lu am solo façon pneu yi nga xam da koy faral di am fii nga xam ti maam ku ko bëgg rek soo ñëwee ci établissement Touba Darou Salaam da nga koy am yan façon euh, xeetu pneu la waaw ñun moom pneu comme ni mu la ko waxee woon rek ci suñ première édition bi xam naa yàlla dogal na pneu avion moo bokkagut ci suñu programme ak pneu gradeur yu mag yi nga xam ne mooy caterpillar yi mais li ko tàmbalee ci pneu tracteur pneu camion ak si ba ci pneu yu ndaw yi voiture yëpp yëpp la ñuy jaay Euh, ba ci pneu vélo yi ci gën a tuuti waaw pneu yi yëpp yëpp yëpp yëpp dañ koy jaay waaw exemple ñaari façon pneu yooyu maanaam pneu camion pneu avion te loolu xam nga day commerce boo xam ne commerce intérieur ak it yu mag yi nga xamante ne bii yàlla dogal na bokk ci ci ay initiative am it waaw loolu daal fooy xeet façon pneu yëpp daal ñu ngi ciy yëngu di yëngut ci accessoire yi nga xamante ne bii euh, defar kër pneu bi nga xam ne day liggéey pneu accessoire yooyu da koy soxla mbooleem luy defar këdd pneu di soxla ci biirub liggéeyam ngir liggéey pneu bi ba mu sotti accessoire am yëpp koy jaay. Ah, dinañ ñëw ci loolu waaye damaa bëgg ñu taxaw tuuti rek ci pneu yi ngir ñu njëkkanteeg waxtu wi ah, am na ñoo xam te si ni pneu moom jënd rek lañ ci xam ah, xamuñu li ñu war a monté xamuñu li ñu warul monté da am ay nit yoo xam te si am danoo jàng métier mi nekk fii pour bu nit ñëwee te xamul li mu war a monté wala xamul yi baax ci otoom ngeen orienté ko ak xam itam danoo nekk ci région bi Eh, te Touba gën leen a jege itam bu fekkee am ngeen fa ay nit yoo xam te si dañ fa yor ay place bëgg ci bagage yooyu nan ngeen jëflante ñoom. waaw fii moom ñi fi nekk ak gone yi ñu ci nàmpatal ñëpp euh, non seulement dañ koy jaay mais yàlla dogal nañu am ci lu mu néew néew rek xam-xam boo xam ne am nañ ko ci boo xam ne xaj na lu ñu jàngal la am ci leneen loo xam ne suñu initiative yi bopp ak suñu farlu bopp moo ñu ci jóoba euh, yow mi ñëw daal te bàyyi ñëw sa bopp danañ def suñu kéem tolluwaay kattan ba jaay loo xam ne bu ñu la ko jaayee dañ ko mën a jëriñoo poulet bi nga xam ne moo gën ci sa oto bu dee oto bu chargé poids la bu dee oto particulier la yooyu yëpp ñu def ci suñu kéemteel kattan du yem ci jaay la mais dañu lay jaay conseiller la même boo indee sa oto it te say pneu am yeneen jafe-jafe yu ci am yoo xam ne dañ ñuy ñëw laaj ñu ci xalaat des fois ñu mu dal ñu fi toujours nit ñëw fi indi fi oto ñu xool ay pneu am te jafe-jafe yi muy yi muy demandé du problème mu pneu bu am problème équilibrage lay demandé mbaa muy problème organe mbaa leneen. waaw ah, loolu dañuy daal toujours kon ñun ñamuñu ci a lekk sa xaalis tax moom ñun ñun duñ doxee noonu te damaa jàpp ne ñu koy ñu koy defit xañ na gis-gis yi moo wute rek waaye loolu moom amul solo ndax nit moom fexe ba aajom faju daal man jàpp naa ne mooy mooy li jiitu ci yitte ci ci ci yitte doomu aadama daal waaw ñun dañuy jaay mais dañ lay conseiller ba daal nga fexe ba yow boo fi jugee que ça soit nga changé pneu wala nga ñàkk bañ a changé pneu mais nga am satisfaction ci li la taxoon a jug waaw Euh, muy lu am solo ñu fàttali établissement Touba Darou Salam euh, Pënë moom la ñu am tey euh, seeraan bi di Seexul di Diop Baye Seex yaa ngi koy sànq ci accessoire defarkatu pënë bi comme lu demee ni xeetu tiir pënë manomètre ubbi sàppo kala ubbi hmm, compresseur moteur gambu accessoire yooyu nga xam dafa composé defarkatu pënë bi ndax am na ñoo xam te jaay rek la def waaye am na ñoo xam ne ni boole jaay ak defar ñooñu ku fi ñëw itam nga xam ñoom ci ñuy defaraat lan danañ am satisfaction wala yow ki jaay kiy jënd di dem rek ngeen di amal affaire. bu dee ci lu jëm wàllu accessoire xam nga accessoire moom euh, borom oto bi yor ab pneu di dawal amu ci aaju yittewoo ko kooku pneu rek la soxla wala jante wala chambre à air mais accessoire moom ñi bokk corps de métier bi rek ñoo koy soxla muy tiir pneu bi muy appareil mèche bi muy monomètre bi clou bi tête ak matériels yi nga xam ne loolu ñaare dana néew nga gis ku yënguwut ci pneu di ko soxla ki yëngu ci rek moo ko soxla. kon ñooñu dañuy jëflante ak ñoom ak marto gi yëpp au delà de loolu aussi ni leen di jaay accessoire yooyu ni la ñuy jaayee euh, pneu yi en di leen ko jaay ñoom ñu mën a jënd tegaat seen place jaay mais noonu lañ koy jaay aussi détail waaw kon lu am solo waaye gis nañ itam ni dafa mel ni gis nañ lu mel ni ay chante euh, euh, da ngeen di wàllu yëngutu ci wàllum oto accessoire ndax gis naa fi lu mel ni ay batterie gis naa fi lu mel ni sant gis naa fi itam lu mel ni ay moteur huile ak li nga xam mooy variateur hybride variant yooyu yëpp dama ko fi gis yooyu da ngeen di yëngatuwaale ci yooyu wala da ko fiy teg nii rek pour ay échantillon hmm, yooyu yooyu yëpp dañ koy dañ koy jaayale parce que yooyu ñaaree dangay jaaye nit puna lu mel ni triangle rouge huile pièce daal pièce détachée yu yi daal lañ lañ ci boolewut mais xam nga yooyu day yoo xam ne chauffeur bi mën na ko jënd directement utiliser ko boppam lu mel ni frein lu mel ni liquide frein lu mel ni euh, ay clé ay ay ay ay euh, yëpp euh, chauffeur bi bu ko jëndee moom moo koy soxlaal boppam directement moom loolu moo tax loolu yooyu yëpp accessoire yooyu yëpp yooyu yëpp dañu ko jaay loo fi gis ñu di ko jaay du échantillon bu ñu teg euh, di ko échantillon ne lu ñuy lu ñuy jaay la loo xam ne saa bu ko client bi bëggee danañ ko mën a pour mu mën a compléter ak trajet am ni ñi nga xam ne mën naa defal pneu dañuy ay sant di ko wala ñu koy kale oto yi dafa mel ni te dafa am gis yoo xam dafa mel ni ñuy liggéey ci côté bi loolu daf di gën a yombal seen liggéey. waaw yooyu ay kal la aussi waaw kal yi aussi dañ ci am ay tonnage tonnage boo ci soxla si tonnes muy kal kal ci jëm boppam day am ay tonnage du fekk su ne kal bu ci nekk euh, mën naa kal yëpp ni kiri ji amee ay ay ay poids noonu la kal yi amee poids ne 3 tonnes am na 6 tonnes am na 12 tonnes waaw kal yooyu yëpp dañ koy jaay pour raison de sécurité rek moom boo xasee téye li muy kal ñaare du rës kalit mën naa bañ a baaje ba ba ba muy rës wala xeet yooyu yëpp ay ay ay innovation la yoo xam ne yu xew ci liggéey bi la waaw. gis mel dañ koy defaale moom it dañuy def kirij moom it waaw. ni yi euh, dafa mel ni gis nañ fi ay ay compresseurs yu mag yu ndaw loolu am nañu dañuy am problème mu courant ndax dañuy xalaat bu ñu ko jëndee est-ce que dinañ ko mën a taal yi ngeen am yéen nan la demee. waaw compresseur dañuy jaay yëpp ñun ne dañuy jaay yëpp yëpp yëpp ay monophasé la maanaam yëpp deux fils moo koy doxal compresseur bi ci gën a mag muy 300 litres 200 litres 100 litres yëpp yëpp monophase rek moo ko maanaam du la indil mukk yenn facture courant yu cher yi wala yu ni demee ci liggéey yu dana dernière génération yi ñu mujjee liggéey ci la bokk ba ci am nañ compresseur jëfandikoo muy ay 50 litres wala 25 litres mais yëpp daal ay monophase la benn doole ci triphase waaw. Euh, muy lu am solo boo ñu doon fàttali fu place bi nekk ak seeni bagage yi fekk si leen fan nekk nan la ñuy def pour ñëw fi ak bu fekkee mënuñoo ñëw nan la ñuy def pour mën a jokkoog euh, Daaru Salaam Pënë pour seeni euh, yitte mën a faj. voilà waaw place bi moom euh, comme ni nga ko waxee woon bi ngay présenté rek maison mère bi mi ngi ci Daaru Salaam ci établissement Daaru Salaam mi ngi ci route de Daaru Xuddus route de garage Daaru Moussi ci biir Daaru Xuddus boo rombee station bi rek à 600 mètres boo jégee premier Dorane deuxième Dorane juste yaa ngi ci place bi foofu mooy maison bi. teewul na am na yeneen succursale ci biir dëkk bi yoo xam ne am na am nañ benn place boo xamante ne bii gaar bu ndaw la nekk am nañ benn xam ne xayra la nekk en face kër El Hadj Maam Thierno yooyu yëpp ñoo place bi ñoo bokk yenn fonctionnalité kenn ku ne zone boo a jógee ci dëkk bi fu la ci a jege ci place yooyu boo fa jëflante yaa ngi mel ni ku jëflanteeg waaw région yi it fu ci waaye nit mën a nekk mën a déplacé wu boo ñëwee danañ jëflanteeg yow suñu kéemteel kattan bari na ñu ciy jëflanteeg euh, bu dee ku mënta ñëw it tout temps soo xasee woote téléphone ba def sa commande mën nañ laa jaay mën nañ ay livraison yoo xamante ne bii mën nañ laa livrer sa bagage ba mu dem garage ñu teg ko ci ay loxo yu wóor ba mu agsi ci yow nga récupérer say marchandises waaw. ñu fàttali ne ku bëgg ñëw te mën a ñëw numéro yi di affiché ci suufu écran bi soo ci wootee foo mën a nekk ci Sénégal rek di nga am accès ci li nga xam mooy établissement Touba Darou Salaam ñu bàyyi la nga def tàggoo bu du tàggoo wala bu fekkee am nga loo ci bëgg a yokk te laaj ñu la ko. waaw daanaka moom mm, di sant mbooloo mi yëpp rek di leen gërëm message bi ñuy daal Euh, danaa ko jëmale ci suñu mbokk yi nga xam ne ñooy jënd puna waaye dinaa ko jëmale it ci suñu mbokk yi surtout ñi nga xamante ne bii ñoo exercer métier mii te di ko liggéey xam naa donte nit ñëpp amuñu doole jënd puna bu bees euh, njaay mi noonu lay demee mais ñu góor góorgóorlu suñu kéemtalaay kàttan rek ci programme puna yi mooy di jaay puna bu bees qualité bu baax di ci jiitu euh, buñ demee bu dugg ci puna venant it ñuy jaay puna venant boo xamante ne bii. da nga def sa kéemtalaay kattan ba la ci def ci yàlla ndax pune day liggéey boo xam ne liggéey bu sensible la ndax bari na gàllankoor yu bari yu xew yoo xamante ne bii pune moo koy sabab la ci jiitu na lenn mën na doon pune boo xam ne état bi mu ñàkk am baax na des fois nga monté pune bu bi war a amit te ki koy monté muy chauffeur bi wala yooyu surcharge poids bi pune bi poids boo xamante ne bii yëpp yooyu yëpp chauffeur si war a ci mën a bàyyi xel ndax pune yi benn bu ci nekk am na vitesse boo xam ne moom la war a daw waru koo romb muy indice de vitesse noonu la amit indice de charge boo xam ne poids boo xam ne moom la tubaab bi liggéey pneu bi waru ko ma dépassé yooyu yëpp ñu bàyyi ko xel ginnaaw bu la defarkati pneu bi taxawoo ba nga am pneu bu baax ba pare daal euh, nga def sa kéem talaay kattan ba yow it sàmmonteeg pneu bi vitesse yu mu war a daw nga di ko dawal indice bi nga xam ne moom la war a chargé nga di ko chargé yàlla mën naa dogal bu ñu ko defee daal euh, jéey yi ñuy wax ci yu bari ci programme pneu moom mën naa mën naa wàññi kon loolu message la bu ñuy lancé boo xam ne dama koy lancé liggéey bi ñu gën cee waaye di ko euh, lancé it clients yi nga ne ñi ñooy sol seenu dàll euh, di ko di ko di ko di ko di ko wuti daal waaw incha allah. jërëjëf jërëjëf euh, Cheikh ci message bu am solo bi nga xam ni moom la tëjee muy message boo xam ne ñëpp ko wara bàyyi xel ndax xam ngeen oto dafa bari ay risques yu ci nekk ndax xam nga ngay daw 150 allure wala ngay daw 180 allure kooku su fekkee da nga am jafe-jafe ci wàllu pneu rek dootoo mën a contrôler sa bopp. kon wax na message bu am solo te mën ko bàyyi xel ñun ñi nga xam ni itam dañoo yor ay métier tey yëngatu ci pono yi nit ki bu ñëwee am problème mu ak lu mën a xew bul bëgg a lekk xaalisam tax nga di ko defal loo xam ni loolu jaaduwut ndax oto bu xasee daw yenn xel yi rek bu ci jëyee pono amee musiba naaru la yàlla na ci yàlla musal yéen ñi nga xam ne itam da ngeen bëgg pono yu baax yéen ñi nga xam ne itam da ngeen a ubbi ay place bëgg xewal ni ku leen mos dolli leen ngir pono yu baax daw leen ngeen seet si établissement Touba Darou Salam pneu Sénat ba di Seexul Xaddim yu fii ci ruutu daru xuddos fi nit la ko xamanteni ni loy looy jëflanteeg ci walu pone so ñëwé di nga am satisfaction totale nim ko waxee sank mo xam batterie auto nga bëgg mo xam chante nga bëgg mo xam yow mi defar pone bëgg compresseur mo xam da nga bëgg gamb mo xam machine bu mag nga bëgg mo xam centre aluminium nga bëgg lepp lo xamanteni auto daf koy soxla témi li gën rek daw leen ngeen établissement Touba Darou Salam ñoo ngi leen sant bax di leen gërëm di leen jox dig dajé ci jotaay assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jere ngeen def ki ñi ngi leen di jaajeufal bu baax baax tay nak gis ngeen suñu jotaay bu spécial bi nga xam tay mom la am ak établissement Touba Darou Salaam euh, Touba Darou Khoudoss ah fii ci euh, palaasu Seexul Xadiim jug ngeen déglu nag jataay yu am solo bi nga xam ne waxtaan nañ ko ñu ak moom euh, mu nekk ay accessoires yoo xam te si nii lépp lu xeet wàllu pneu la kon ni ko waxee rek képp koo xam da ngaa bëgg pneu bu baax pneu bu am boo xam ne boo ko monté sa conscience day tranquille nga mën daw oto bi joow du am benn xalaat ci sa wàllum pneu dawal nga seet si établissement Touba Darou Salaam pneu Seexul Xadiim Ndioub moo fi nekk gis ngeen lépp loo xam ne accessoire la ci wàllu pneu daf koy am moo xam chambre à la moo xam compresseur la moo xam kalaa bi la moo xam tire pneu la moo xam moteur oto la moo xam ndox la moo xam grille la moo xam kal la lépp daal loo xam ne oto daf koy soxla woo établissement Touba Darou a pneu daf koy am Sénat bi Cheikh Ndiouk même pneu yu mag yi lépp daal luy pneu mam des pneu avion ak pneu li nga xam ne mooy quatre plans yi yooyu rek la établissement Darou Salam dul jaay kon ñi ngi leen jox rendez-vous incha allahu rabbi ci yeneen jataay waaye képp ku lu baax di daw ci sécurité dawal nga seeti établissement Darou Salam والسلام